rappeler une petite euh, donc disposition ou bien la décision du Conseil constitutionnel rapidement bi mu nee donc les sept ans son hors de portée de la révision hors de portée kon le problème de décompte se pose il y problème de déconte kañ lañu ñu war a mën a compter le nombre de mandats donc foofu Conseil constitutionnel ci décompte bi lay wax sept ans yi duñ ko boole ci décompte bi ça veut pas dire que sept ans yi du mandat sept ans yi mandat la effectivement sept ans yi constitution 2001 moo ko prendre en charge 2016 révision la waaye président Macky Sall bi mu dugalee pour demander l'avis du conseil constitutionnel ba mu koy tontu jël une décision dafa ne ko sept nu mu tëddee les sept ans sont hors de portée de la révision constitutionnelle dégg wax ji donc du coup booy décompter mënoo décompter les les les nu mu euh, le fait qu'on dise nul parce que fa lañ ko dugalee en 2016 nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs mandat sept bi décompté wuñ ko parce que conseil constitutionnel nee na c'est hors de portée léegi nag loolu peut-être bu fekkee ne ñoom ñi am beneen position. bëgg naa ñu leeral ma ci hors de portée boobu ñoom nan lañ ko comprendre man sama compréhension laa joxe comp li ma comprendre mooy c'est hors de porté mooy kenn du ko boole ci déconte bi c'est important mandat la mais kenn du ko boole ci déconte bi déconte bi mooy depuis que ñu ne nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs mais plus de deux mandats consécutifs à ce bu ñu bu ñu ko boolewul ci déconte bi sept ans yi donc effectivement c'est deux mandats de cinq aussi simple que ça deux mandats de cinq ans nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ces deux mandats sont des mandats de cinq ans parce que c'est bien précisé à l'alinéa premier que le mandat est de cinq ans ensuite deuxième argument mooy le conseil constitutionnel nee na sept ans yi c'est hors de portée de la révision donc c'est clair que booy décompter doo ci boole les sept ans c'est aussi simple que ça sinon le président Macky Sall ba ñu defee référendum encore une fois en 2016 il n'a pas son mandat ne s'est pas arrêté en 2016 da ko continuer kon révision bi jëlu ko en charge. alors cette précision donc cette précision faite.